ñun nous sommes 18 millions ñoom 68 millions lañ am sax bombe nucléaire lan moo tax ñun ñu bëgg a xeeb suñu bopp mais réew yi yow bi ngay jël lii di ko doxal ñaata nit nga dajal ñu ne la du dem fenn n personne te pourtant yaa ngi koy doxal tey jii am na kuñ tuddee nit ku expérimenté manul taxawal li nga taxawal ñun li ñu réussir en un temps record ci politique ñu bari bañ koy commencé ñemewuñu ko xalaatuñu ko déglu naa ci plateau de télé yu jeex ñu ne kii du am benn député du ko am du am dara parlant de vous. waaw daje naa ak ay ba tàyyi ñu naan ma sax bul découragé xam nañ ne bii moom dina jafe mais après bul bàyyi di ma te man j'ai jamais douté te noonu laa gëmee ne li ñuy liggéey ci terrain bi fi mu ne nii ak li ñu sénégalais yi di wax ak li ñuy dégg ci sénégalais yi ak le président de la république le plus jeune d'ailleurs xam naa au monde bi ñuy am en à partir de 2024. donc 2024 yow la. mais incha allah on a on a l'énergie on a l'énergie am nañu capacité bi. de faire travailler les gens xam nga un président de la république aujourd'hui ce qu'on lui demande c'est de faire travailler les gens te ñun pare nañ tey pour jëli boroom xam-xam fu mën a nekk te lool Mouhamed Sis fi ne nii bu bëggee liggéey dara euh, Maroc xam nga lu muy laajte ban marocain moo ko dàq ci àdduna bi ñu ne ko ma nga Ohio wala Cincinnati mu ne bu mu fa fanaan na ñëw tey moom la ñu soxla mais man loolu laa bëgg la ressource humaine sénégalaise mais elle est formidable ci àdduna bi boo tukkee ba dajeek ñoom ñu wax la fi ñuy liggéey mais tu es impressionné te ñooñ mënuñu servir Sénégal tey jii boo jëlee nii nga xamante ni mën naa leen a tudd tey ñoo xamante ni ils son dans la classe politique pétrie de talent mais tey jii da gis ne politique politicienne dafay tax ne dootuñu sax nekk lumière yooyu ñuy war a doon ak jëriñ seen réew ñooñu ñu war a jëriñ seen réew te ñooñu dañoo soxla dégg leen mën naa ji tudd ku mel ni Moustapha Guirassy brillant sa contribution tey jii à son effort de guerre pour pour Afrique ci wàllu éducation kenn xamul ni mu toll mais xool ko tey alors ku mel noonu Sénégal soxla na ko boo jëlee ku mel ni Cheikh Bamba Dièye de talent il a une parole qui a du sens mais tey xoola Sénégal mënu ko jëriñ ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni mën naa leen a lim boo jëlee ku mel ni Mary Teuw Niane la même chose réew mu mu wàcc Afrique dañuy jàpp ne yàlla bu ndaw moo wàcc mais Mary Teuw tey ku mel ni moom mënoo envisager nii du Sénégal te doo ko ci boole. bari nañ ñoo xamante ni tey Pape Abdoulaye sekk bi yoroon agriculture booy voyager en Afrique les ministres de l' agriculture ki ma ci gën xam mooy le ministre de l' agriculture marocain mais boo demee Pape Abdoulaye Seck mooy sëriñam daanaka kilifa la ko def. ku mel ni Pape Abdoulaye Seck mënoo ñëw jox ko Sénégal agriculture am yéene ci agriculture su su fekkoon président Macky Sall récompensé wul euh, le contrat politique au détriment du contrat de performance kon Pape Abdoulaye Seck mooy continuer yor agriculture parce que xam na ko mën na ko et il est respecté par ses pairs.